بالله من الشيطان الرجيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ñi ngi taxawoon ci àllarba ji jàll walladina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul jannati hum fiha xaalidun ñu war a tàmbalee tey wa id axadna mithaqa bani israil la taabuduna illa allah naa bu ñu ko jàngee ba noppi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم kon suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wéy di wax ci banu Israil ak seenub dëgër bopp dañu tàmbalee ci bàqara ba fii nu toll lépp ci banu Israil la ñuy wax ñàkk a dégg ndigali suñu borom yi subhanahu wa taala bokk na ci li nga xam ne mooy njëriñu nag bi nu nettali xibaar yu jàll yooyee mu nekk ibra ci ñi ñëwaat ci seen ginnaaw ñu xam ne yàlla ay melo ci lay xool ay jaamam jëmmi jaam ñi yitteelul yàlla melo yi nga xam ne moom la ñuy làmboo tamuy yu mu gërëm moom lay toppatoo melo ya nga xam ne moom la ñuy làmboo tamuy yoo xam ne yu safaanu la te loola la leen di topp ëllëg banu israil dañuy maanaa giir goo xam ne gu dëgër bopp lañ ci ku toppoon tafsir bi ba agsi ci da nga xam ne mboolem lu leen suñu borom subhanahu wa taala santoon amul lenn loo xam ne def nañ ko ci Muusa la ñu àndal jàppe ko muy seen jumtukaay lu ñu soxla ne ko waxal yàlla mu defal na ko su leen ko defalee itam du tax ñu gëm ca lam doon wax dara borom subhanahu wa taala wax fii baatub wa id id xam nañ ne zarfun la maanaam ak ida li leen wutal rek bu dee id moom zarf la lima mada min azaman maanaam lu jàll la wa id fàttalikul ba nga xamee ne ñu fi taqdir wazkur fàttalikul id ba nga xamee ne axad naa jël nanu nun yàlla misaaqa bani israila maanaam kóllëre ci banu Israil bi nga xamee ne suñu borom dafa jël ci ñoom kóllëre mooy na ngeen topp ko li nga xam ne moom laa leen digal bàyyi li nga xam ne moom laa leen tere ci biir tawraat loola bokk na ca la nga xam ne moom lañ ci indi ci biir tawraat seen digal yooyee te yàlla digal ñu ko yonent sallallahu alayhi wasallam digal ñu ko ci dem suñu xeet yi mooy bii nga xam ne moom la jiital laa taabuduuna illa allah maanaam bu leen jaamu kenn ku dul yàlla xam nañ ne ci wàllu naxwu danañ wax ne al istisnaa baada nafi yufiidu al xaf maanaam su fekkee ne dañoo indi ak sette ginnaaw boo xam ne ak dàq da ko jiitu loolu day wane ne kon léegi xafru am na lan mooy xafru mooy boo ne ma zaydun illa qaimun day wane ne zayd taxaw dong la def defut leneen mënoo jaa tegati ne dafa toog moo tax suñu borom subhanahu wa taala ñu di ko seetlu ci biir alquran saa bu dee wax lu aju ci wàllu jaamu yàlla daf koy xafru ci boppam du nangu mu génn boppam bokk na ca ba ñuy jàng fatiha iyyaka na'budu nga xam ne foofu dafa taqdim ma'mul bi ala al-amil nga xam ne waxul ne na'budu iyyaka waaye dana iyyaka na'budu ngir nga xam ne mbirum jaamu yàlla ci yàlla rek la jëm jaamu yàlla nag baat la boo xam ne bu yaatu la ndax ni ko benn boroom xam-xam waxee ne ismun jaami'un li kulli ma yuhibbuhu allahu ta'ala min al-af'ali wal aqwali al-zahirati wal batina ibaada buñ ko waxee tur la woo xam ne day lamb lépp loo xam ne yàlla akub yonenteem gërëm nañ ko moo xam ay jëf la moo xam lu ñuy wax la moo xam yu feeñ la wala muy yu nëbb ni ki pas-pas maanaam kon la nga xam ne moom laa jëloon man yàlla ci banu israila muy misaaq misaaq leeraloon nañ ko ci ginnaaw ndax jaar na ci ay yoon yoon misaaq mooy al ahdul mu akkadu bil yamin maanaam la kóllëre goo xam ne da nga koo jël ci nit te ba nga koy jël itam nga fàttali ko ci waat ci ne doo ko firi kon la nga xam ne moom laa jëloon ci ñoom muy misaaq ci tawraat mooy ñu bañ a jaamu ku dul yàlla la taabuduna illa allah bu leen jaamu ku dul yàlla xam nañ ne li ñu wax tawxid al uluhiyat ak tawxid al rububiya ñaar la yu nu roota bokkuñ tawxid al rububiya maanaa maanaa saxal ko taxuta mucc tawxidul tawxidul rububiya mooy lan yëg nga ne yàlla mooy sa borom yëg nga ne yàlla moo lay wërsëgal yëg nga ne yàlla bind asamaan yëg nga ne yàlla moo bind suuf yëg nga ne yàlla mooy tadbiir mbir yi yëg nga ne sa nopp bii li ciy dégg yàlla ko ci def yëg nga ne xol bi yàlla la ko may waaye nag saxut maanaa liy mbirum jaamu yàlla nga nangu ko caa wéetal yàlla kooku la leen moom tawxid rububiya la maanaam waaye nangul nangoo jël mbooleem loo xam ne xeetu jaamu yàlla la féetale ko yàlla kooku mooy tawxidul uluhiya te moom mooy bi taxoon yonente yi ñëw di xeex wa illa tawxid rububiya moom fekkoon nañ ko am maa bu nag ndax suñu borom wax nañu ne yéefar yaa ngi ne waaye wala in saaltahum man xalaqa samawati wal ard wa saxara samta wal qamar la yaquluna allah soo leen laajee kana bind asamaan yi kana bind suuf yi donte gis nañu alquran toujours baatu ard bu koy jëfandikoo bu ko boolee asamaan du ko jam ndax xam dañoo ne al arabi maanaa jërul jamono ndax yëpp benn benn benn jins la bu dee asamaan yi nag dafa nekk ay tabaqaat samawaat wal ard maanaam li ñu itteel mooy boo leen laajoon ñoom yéefar yi kana bind asamaan kana bind asamaan yi kana bind suuf kana doon tàggat jant bi kana doon tàggat weer wi boo leen ko laajalee yaquluna allah danañ la wax ne la yàlla ko def feneen suñu borom subhanahu wa taala wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko waxal wax leen ñoom yéefar yi ne leen qul man yarsuqukum min assamai wal ard ana kana leen di wërsëgal ci asamaan ak suuf ndax da ngeen fay gis dara luy wërsëgal doomu aadama ci asamaan ak suuf kurul yàlla amma yamliku sama ana kana moom sam waxoon naa la ne yàlla du jëfandikoo amma yamliku udun ana ko moom nokk ndax nokk kese su fekkee ne déggut maanaam boo ko dee wax nit ki ne maa la ko jox loolu aw ngaa ñu la gën a jege maanaam dégg gi kana moom dégg gi amma yamliku sama wala absaar kadalika yàlla du wax al uyun bët yi ndax bëtu kese bu amatul la tay gis kooku du am njëriñ ci nga ci imtinaan kenn kana moom lay dégg ci biir nopp ana kana moom maanaa al absar mooy li ngay gis ana kan moom al afida maanaa xol yi nga xam ne boo déggee lu baax ñu koy téye ama yamliku sama wal absar wala afida wa man yuxrijul xayya min al mayit ana kana mooy kan mooy fekk lu dund mu génne ko ci lu faatu wa man yuxrijul mayita min al xay ana kana fekk lu faatu mu génne ko ci lu dund wa man wa man yudabbiru amr ana kan mooy tadbir mbir yi maanaa kan mooy doxal mbir yi loolu boo leen ko waxee lu ñuy wax fa sa yaquluna allah yàlla moo def loolu kon ñooña saxaloon nañ loolu waaye taxu leen woon mucc de fi nga xam ne fi la maaraka bi nekk mooy maanaa tawxidul uluhiya tawxidul uluhiya mooy bu ñu xasee xam ne lii ak jaamu yàlla la yonente bi alayhi salatu wasalaam saxal ne di nangam de ak jaamu yàlla la ñu jël loola féetale ko yàlla te bañ koo sarfu di ko yóbbu ko dul yàlla ndax shirk mooy sarfu maa li gayrillaahi sarfu maa lillaahi li gayrillah jël la yàlla moom jox ko keneen ku dul yàlla loolu mooy tooñ yi nga xam ne moo gën a féete kaw ci tooñ yi ñu xam ma tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ne musuma yeble yàlla la jiitu yow yonente bi musuma yebal benn ndaw lu dul ne ndaw loolu wax yu naa ko ne amul benn buur bu dul man kon nañ ma jaam wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuxa ilayhi wala illa nuxi ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudu feneen mu ne man yàlla yable naa ci wépp xeet yable naa fa ndaw loo xam ne bu demee la muy njëkk wax mooy nanu jaamu yàlla rek sa teet lépp loo xam ne taaxut la taaxut mooy kullu ma ubida min dunillah lépp wa huwa wa huwa anhu wa huwa minhu raadin lépp lu ñuy jaamu te du yàlla te loola d'accord ca loola ndax li ñuy jaamu te du yàlla te loola d'accord ci bari na lool bu ñu jëlee ko mel ne yonent yàlla Isa aw nitam lañ koy waxal maanaam lu rëy la waaye nekkul ni moo ko saxal ndax jaaroon na ci ginnaaw ba ko suñu borom laajee ndax yaa waxoon nit ñi ne leen nañ la jàppe yow yaa sa wayjur wu jigéen ñaari yàlla bàyyi fi yàlla mu ne déet loolu mosuma ko wax maanaam man kay la ma leen waxoon mooy la nga digaloon sama an abudullah rabbi wa rabbakum nañu jaamu yàlla mi sama borom di seen borom lay mbir ma kay mooy booba jamono booba dama faa teewoon luñ ma saxalal lu bokkut ak la nga xam ne moo war a am ma weddi ko waaye ba nga ma faatee man yàlla xamutuma luy xew ci seen ginnaaw fala ma tawfaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid kon suñu borom nee na yable naa ci yépp xeet yable naa fa ndaw loo xam ne bu demee la muy digle mooy nañu jaamu yàlla rek te bàyyi tawut tawut mooy lu ñuy jaamu te du yàlla wala lépp loo xam ne dañ caa appal ba di ko jox maanaa sifaat yàlla yi laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wa yajtanibu tawut ak ji gën a rëy nag boo xam ne nit ki amel na ko boroomam subhaanahu wa taala mooy mu jaamu ko moom rekk te bañ koo wutal moroom lu tax xel nangu na ko bu baax a baax suñu borom subhaanahu wa taala mooy jëmm ji nga xam ne boo xoolee sa jëmm ba mu jeex doo gis ku ci def benn cër ku dul moom kon boo xoolee itam kawnu bi doo gis kenn ku ci bokk ak moom asamaan jeneen ju bokkut ak jiinu xam ju keneen bind ku bokkut ak yàlla suuf feneen su bokkut ak jiinu xam keneen bind ku dul yàlla nit ñeneen ñu bokkut ak nit ñu xam keneen bind ku dul yàlla kon yàlla wéet na ci ay jëfam wéet na ci ay jëfam mooy amu ci moroom ko ko ci fekk léegi nag lu ko def mooy nu ñu wéetal ko ci jàmm gi ñu wéetal ko ci jàmm gi wa illa baatu laa ilaha illa allah làmb na mbooleem lu ci tawxid bu fekkee nit ki wax na ko taxam mooy lan la dafa dafa nekk nag ne tawxid day maanaam mbirum ilm xam-xam la bu ñuy jàng mëni su koo xam nga nii rek moo tax faalam annahu laa ilaha illa allah baatul ilmu dafa yàlla jëfandikoo faalam annahu laa ilaha illa allah baatu laa ilaha illa allah baat la bu yomb a wax ci làmmiñ waaye baat la bu naqaree dégg am maanaam ndax ba tey li ma doon wax ci ne al istisnaa baada nafi yufiidu lxaq maanaa dàq nga mbooleem lu di ak uluhiya saxalal ko jëmm jëmm muy subhanahu wa taala laa ilaha illa allah innahum kaanu ida qiila lahum laa ilaha illa allah yastakbiruun ñoom yéefar yi boo leen mosoon wax ne leen wax leen baatub laa ilaha illa allah istikbaar muy réyréylu daf leen di jàpp ne nun ndax dañ fi bàyyi li nu xamoon mu di ay yàlla a inna la taariku alihatina ngir benn waykat boo xam ne dof la a inna la taariku alihatina li shaairi majnun alquran ne dofudde bal jaa bil xaq wa saddaqa al mursalin moom li mu indi lu dëgg la moom dëgg la indi te a dëgg la indi muy alquran ñaareel bi itam ña ko jiitu woon ñëpp di ay yonente dëggaloon na leen bal jaa bil xaq wa saddaqa al mursalin li am kay mooy yéen ñii yéen a nar a jaar ci ci mbugal mu metti yéen a nar a mos mbugal mu metti innakum la daa'iqul azaabil alim yéen yi maanaam wéetal jëmm yàlla féetale jaamu yàlla yi ci moom loolu nangu woon ko ajaala al alihata ilahan wahida ndax dafa bëgg a jël yàlla yi yëpp yi ñu xamoon ne yëpp bëgg ko def muy ilahan wahidan inna hada la shay'un ujab loolu day mbir mu yéeme la kon xam nañ ne ñoom bu ñu waxee baatu laa ilaha illa la cay juddoo mooy seen dund gi day daal di sotteeku ci sens baatu laa ilaha nit bu amoon juróom-ñetti fukki at maanaam jeexal juróom-ñett fukki at yëpp ci kéefar xëy benn bis wax laa ilaha illa allah te xam maanaama dund gi day soppeeku léegi léegi léegi léegi mu jaral ko loo xam ne fi bu ñu bëggee misaal dañuy ñëw ci saxaratu Muusa ya maanaam Muusa ba ko yàlla yebalee ca Firawna ñaba maanaam a ngi naan saxaratu Muusa saxaratu Firawna laa bëgg a wax ñaba ca Firawna ya ñoom day am na lu ñu yoroon loo xam ne dañ ci daan tëng yi ak tashwi maanaam di mel ne kuy def dara te defuñu dara di ciy jommal nit ñi dégg nga wastarhabuhum wa jaa'u bi sixrin azim ni ko suñu borom waxee waaye keroog ba ñu leen boolee yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa suñu borom tàggat ko ci benn mbooloo moo xam ne fa la ñu daje ñoom ñu ne kan mooy njëkk a sànni mu ndigal bal alqu ba ñu sànnee ba ñu sànni seen maanaam la ñu sànni mu mel ne ay buum mel ne maanaam ay jaan seen buum yi yoroon ak seen yar yi soppali ay jaan yu dox fa ida xibaaluhum wa xisiyuhum yuxayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a Moussa sax boobu xawoon naa mu ragal tuuti fa awjasa fii nafsihi xiifata Moussa wa rabbi nag laa taxaf innaka anta al-a'la innaka anta al-a'la yow yaa nar a féete kaw ndax lu tax mu fataw féete kaw muy iman gi nekk iman bu nekk ci nit ko toujours mooy féete kaw alquran nee na wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin in kuntum mu'minin in jooju in chartiye la mafhumu charte mafhumu charte mafhumu charte mooy maanaam la ñuy déggee charte ba mooy nun duñu kawee su fekkee ne sunu iman amut comme li alquran ne fa in xiftum an laa taadilu fa waaxida jigéen ñaa ngi noonu waaye bu ngeen ragalee bañ a maanu yem ne ci benn ñu yéegi ci ne kon ku koo xam ne yëg ci nga yëg ci sa bopp ne da nga maanu kon bu la neexee nga jégi benn kooku moom moo ko mu charte wa antumul aalawna in kuntum muminin yéen a nar a féete kawaay ci part mooy bu ngeen gëm yàlla kon ñuy déggee ci ne bu fekkee ne gëmuñu yàlla noonu dañ du duñu mën a kawe mukk ba fu mu charte laa lay indi rek ci alquran lu mel ne fa in taabu wa aqaamu salata wa aatawu zakata fa ixwanakum fi diin ñu ngi nii waaye bu ñu tuubee na nga taxawal julli na nga joxe asaka seeni mbokk lañ ci wàllu diine luñ ci déggee fa in lam yatuubu wa lam yuqimu salaa wa lam yuaddu azakawat fa laysu ixwanakum fi diin loolu mooy ma ko mu chart kon li ma tax a jóg mooy dund goo xam ne daa soppeeku ci baatu laa ilaaha illa bu jëm wax ñooña ba nga xam ne ne Moussa sànni na yatam moom dafa ya wan na seen yat yëpp nekkaatu yat mu téewaat ko ci loxoom ñoom ay njabarkat lañ xam nañ lan mooy njabar xam nañ ne lii Moussa def du njabar xam nañu lii Moussa du def du ñëbax waaye lu ñu wax ci saase inna amanna bi rabbi haruna wa Moussa ci saase loolu mooy maanaam amul dem dem dem kër gi ba ñëwaat déedéet fii rek inna amanna bi rabbi haruna wa Moussa nun day gëm nañu boroom Harun gëm nañ boroom Moussa ndax ñaari ndaw la yoo xam ne fi yàlla leen yebaloon doo ci benn barab Firawna mi nga xam ne fii moo leen woowoon ngir ñu jàppale ko ca loolee muy def samay caaxaan ne leen a amantum la leneen laaj ndax di ngeen koy gëm qabla an aadana lakum njëkk mu leen ci jox ndigal mi ngi mel ne moom mbirum mbirum aqida léegi ci loxoom la nekk maanaam mbirum pas-pas léegi maanaam moom am na ci droit yilif na dëgg la nit ñi waaye ci mbiru pas-pas yilifu leen ci maanaam dafa defoon ne moom dafay yilif nit ñi ci wet yëpp moo tax mu ne a amantum lahu qabla an aadana lakum daa di tuumaal Moussa léegi ci tuumaal waxaa ne ku ko dégg xam ne wérul innahu la kabirukum alladi allamakum sihr kii mooy seen mag mi nga xam ne moo leen doon jàngal jabar nag nga xam ne ñu Moussa tey lañ ko fekk jabarkat yi dañ leen woo dañ leen woo ñu ñëw kon kañ la suñu xamee Moussa ba muy nekk seen la kabir seen kabir bi leen jàngal jabar innahu la kabirukum alladi allamakum sihr waaye lu mu wax wala uqatti'anna dégg loolu tëkku yi ji ko am tawxid wala uqatti'anna aydiyakum taqti'a qattaa ak qataa bokkul arab soo ne qattaa mooy daggate daggate daggate maanaam lii boo nekk boo ko defee nii rek kooku xataa rek la arab bi wax su fekkee ne da nga koy dagg di daggati dagg yooyu kooku la alquran arab bi wax xataa xataa mooy daggte dégg nga maanaam tasfir bi faala tayir ixtasir wa azil waafiq tafaala aw waafiq bihi faala tasfir bi faala faala dañ ci tasfir faala li ñuy jëriñ ci loolu arab yi mooy bari tawafa bari na lu mu wër jawwala bari na lu mu wëleel xattala bari na lu mu rey wala uqatti'anna aydiyakum danaa daggatee seen loxo yi wa arjulakum danaa daggatee seen tànk yi te arjul foofu maanaam jamu qilla la buñ jëfandikoo ci barab boo xam ne jamu kasra foo la nekk ndax la muy dagg ci tànk lu bëri la wa arjulakum wala usallibannakum fi juduu'i nax danaa leen salab salab mooy rey nit ci maanaam def nii ay loxoom jam ko ay pont daaj ko ba mu faatu Firawna soxor gi mu soxor xam nañ ne salaf koy def li ci kaw nga koy defee kon baatum ala la waroon a jëfandikoo foofu wala usallibannakum ala juduu'i nax waaye soxorte gi moo tax mu ne fii juduu'i nax juduu'i nax feddlil boppam ñaari feddli laamu tawkiid ak nuunu tawkiid wala taalamunna ayyuna ashaddu adaban wa abqa da ngeen xam maag Moussa mii kan a ci gën a tar am mbugal ak kan moo ci gën a def am mbugal xoolal tontu gaa yi la nu'siraka ala ma jaana min al bayinat lu coon bëri bëri dun la gënal mukk ci li nga xam ne moom lañ gis tey jii muy ay bayinaat walladi fatarana war nañ ko ci yàlla mi nu bind ñu ootatuñ ci jiital te kat ba ñuy dem luñ doon wax bi izzati firawna inna la nahnu alghalibun ci tedd nga firawna nun mooy nag waaye bi tawxid ju duggee la ñuy wax walladi fatarana ñu ngi waat ci yàlla mi nu bind faqdi ma anta qaadin faqdi ma faqdi ma anta qaadin loo mën a ate ate yow doo kenn innama taqdi hadihi alxayat dunia sa atte moom mënta doxe ba génn addina ci dong la yem faqdi ma anta qaadi kooku li ci nekkoon cosaan ci wax ji mooy faqdi ma anta qaadihi ni nga ko xamee ci naxaw ka murra billadi marartu fa huwa fa huwa baax faqdi ma anta qaadihi innama taqdi hadihi alxayat dunia lu wax inna amanna bi rabbina nun kay tey gëm nañu sunu borom lu tax li yaxfira lana xataayana ngir mu jéggal ñu suñu ñaawte fi ñu daan def ak li nga xam ne yow dong yaa ngi ci force ñu def ko nag wa ma akrahatana alayhi min nafsihi dàqal nañ ko wax jële wallahu xayrun wa abqa moom nee woon na wala taalamuna ayuna ashaddu adaban wa abqa ñee ne ko wallahu xayrun wa abqa dégg nga wallahu xayrun wa abqa loolu mooy wane ne baat boobu muy tawxid bu xasee dugg ci doomu aadama mën naa fekk du dëggoo xam ne ko jeexaloon lépp ci ay jaaxaan waaye benn saa lay sotteeku maanaam sotti goo xam ne dafa yéen ñëpp kon lépp li ñu indi woon mooy baatu laa taabuduna illa allah ak ji gën a rëy ci yàlla am mu jaam bi amal ko yàlla mooy mu wéetal ko damañ koo wutal morom wax nañ ci alquran feneen wa qada rabbuka an laa taabudu illa iya la mu digal ñële ci ban la mu digal bani israil ca tawrat digal nañu ko moom tam ci alquran wa qada rabbuka an laa taabudu illa iya qul taalaw atlu ma harrama rabbukum alaykum an laa tushriku bihi shay'an an laa tushriku bihi shay'an muaad ibnu jabal dafa ànd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi togg ko ci am mbaam di wane tawaadu ak yonente bi alayhi salatu wasalaam jël kenn ci saxaaba yi togg ko ci am mbaamam ñu dem ba yàgg mu ne ko ya muaad atadri ma xaqullahi ala al ibad Muaz ndax xam nga lan mooy àq yàlla ci kaw jaam yi wa ma xaqul ibaadi ala allah ak lan mooy àq jaam yi ci yàlla Muaz ne allah wa rasuluhu alam yàlla de xam ak yonente bi yonente bi noppi waxul dara ñuy dema dema dema dem dem ba sori waxaat ko loolu ya Muaz atadri ma xaqu allah ala alibad wa ma xaqul ibaadi ala allah Muaz ne ko allah wa rasuluhu alam mu génn ca wax ja loolu mooy li ma lay waaj a wax ñor na ma ba nga maanaam intiba mu yee ko ba nga xam dana la bàyyi xel li ngay waaj a wax lu mu doon mu ne ko xaqullahi ala alibad an yaabuduuhu wa la yushriku bihi shay'an maanaam ak ji yàlla am jaam ñi amel ko mooy ñu jaamu ko moom rek te bañ ko wutal ndend te bañ ko wutal moroom ne ko ndax xam nga loolu buñ ko defee luñ leen ci fayee mu ne ko déedéet mu ne ko xanaa aljanna loolu danañu gis ci xadis bu wér yonente bi alayhi salatu wasalam di wax ne maanaam képp koo xam ne tasa nga ak sa borom te sa xol dara ci ak bokkaale nekku ci da nga dugg àjjana ñu ne ko wa in zana mu ne wa in zana wa in saraq mu ne wa in saraq loolu daa sàcc wala loolu daa njaalu sax gannaaw moom circulé wut ci xolam boobu daw doon dem àjjana loolu bisaara la ci xeet bi bisaara la ci xeet bi Muaaz yonent bi na ko wala mel noonu mu ne ko doo ma bàyyi ma bi ma wax ko nit ñi mu ne ko bu leen ko wax ndax kon dañuy ittikaar mooy du du dutuñu jaamu yàlla jaamu yàlla bu ko wax kon li ëpp solo ci ba ab jaam mooy mu jaamu borom bi subhanahu wa taala te bañ ko wutal lent bu loolu jàllee ak ji nga xam ne moom la yàlla am ci jaam yi mu mu yàlla mu tofal ci àqi maxluqiin yi mooy ñi yàlla bind àqi maxluqiin yi ñi yàlla bind dañoo am ay àq ci yow ndax da ngay dund ànd ak ay doomu aadama ñuy dund ak yow yéen ñëpp ngeen bokk leen bind comme amal nga leen ay àq waaye àq yooya la muy bëri bëri am na ci koo xam ne àq xam da caa gën a dijj mooy kan wajur moo tax ñu jiital ko fii wa bil walidayni ihsanan maanaam wa ahsinu ihsanan bil walidayni na ngeen rafetal ak rafetal bil walidayni ci seen ñaari way jur maanaam ihsaan nag baat la boo xam ne bu kawe la boo xam ne bu yaatu la lépp loo xam ne lam maanaam baatu ihsaan lamb na wax ju teey lamb na jëf ju baax te rafet lamb na wax ju teey lamb na jëf ju baax te rafet wa bil walidayni ihsanan borom bi subhanahu wa taala mosuñu ko jot ci alquran saa boo waxee mbirum jaamu yàlla jëmale ko ci boppam faaw dana ci fësale wajur wa qada rabbuka an la taabudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana fa ca suratu luqman an ushkur lii wa li walidayk maanaam nga sant ma man yàlla ci li ma la defal waaye nag santal itam sa ñaari wajur yi itam sa ñaari wajur yi maanaam gis nañ sax alquran jëfandikoo waxi woo xam ne ci wajur dong la ko mos a jëfandikoo maanaam waxi woo xam ne fii maanaam ni mu lamboo ay teggin ak ni mu lamboo ak ñeewante mosuñoo gis ko alquran jëfandikoo ko du ay wajur imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uffin saa boo xamee ne kenn ci ñoom ñaar dafa doon mag da nga fekk ko te teewe ko ak jàmm wala sax ñoom ñaar ñëpp doon anoo ba da nga fekk te ki nga ko doon waxal kat moom yàlla def na ay waajur nga ñoo teel a wuyu ji muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon kat yi la ñuy waxal imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma risque nag lu wax jee bëri bëri ak luñ la gëdd gëdd ñoom bu leen wax mukk baatu uffin wala taqul lahuma uffin uffin buñ ko doon xool daanaka mën nañoo wax ne ñu ngi ko tarkibe ci ñetti araf dong te suñu borom nanguwut ñu wax ko suñu koy jëf te loolu yàlla bu mu dal waaye lu bëri bëri méccitu méccitu sax moo gën a rëy baatu uffin boobu yi falaa taqul lahuma uffin lu métti métti rek falaa taqul lahuma uffin bu leen wax bu leen wax mukk baatu uffin wala tanharhuma bu leen gëdd ñoom ñaar bu coow li bëri bëri ba nga gëdd sa ñaar way lan looy def kon wa qul lahuma qawlan kariman di leen wax wax ju baax wax ju deey loo man nit ki mën naa am wajur woo xam ne masalan mën naa am moom ci boppam ni ko yàlla joxe daraja wajuram ay wut noonu daraja waaye bu boobaa itam wax dëgg lahuma janaha dulli na nga weefal na nga suufeel sa laafum torox xam nga ganaar su fekkee ne daa bëgg yërëm doom yi dafay siidi laaf yi maanaam dugaleen ci loolu waxinu arab la wuy wane maanaam ak suufe ak torox wax dëgg lahuma janaha dulli min arrahma da ngay wax ne yàlla yàlla nga leen yërëm ñoom ñaar comme niñ ma yare boo doonee ko def rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira waxin woowi ak ñu ñeewante mosuñoo gis borom bi jëfandikoo ko ci fenn fu dul ay wajur kon wajur lu am doole la loo xam ne yonente bi alayhi salatu salaam benn bis dafay waaji kaw min bar bi ba yàgg mu ne raxima anfu abdin sorox na ba sanub jaam waxat fa ñett wax fa ñett yoon benn bis mu daal ne amin amin amin ñett yoon ñu noppe ñu laajte ne ko lu tax nga ne amin amin amin mu ne jibril daf maa wax ñaar ñetti mbir yëpp ma moo wax ma wax ca amin bu njëkk ba mooy jibril daa wax ne ah jëpp jëmm joo xam ne su dee yow yonente bi alayhi salatu wasalaam tudd nañ la ci barab te moom néewut asfala aw néewut sallallahu alayhi wa sallam day kooku torox na yonente bi ne ma ne amin mu ne képp koo xam ne adraka ramadan falam yufar lahu ramadan jëm na ba jàll ak ni mu nekk wéeru yërmaane te yàlla jégal ko ci fàtte ko wéy torox na yonente bi ne amin ba ja topp mooy dafa wax ne torox na waa joo xam ne dab na ñaari way juram ñu ngi dund te amut ngërëmul yàlla maanaam ndax ñaari wajur jumtukaay la yoo xam ne ma ni su cee sàkko ngërëmul yàlla subhanahu wa taala kon loolu foofu lay lislaam teg wajur maanaam fu teg yeneen yar yi nga xam ne ñoom seen wajur wax ko du dëgg lu yomb fi ñoom la maanaam ak ñu ngi rogalaat bi dugg sax suñu mujtama bi di dogalaat bi dugg suñu suñu société bi ngir lenn du maanaam ni ñuy toppatoo yar yooya ba mu war rogalaat dugg ci biir kër yi gis nit koo xam ne fi wajuram day wax waaye daanaka rek day waar la kon nan ñu rafetal jëm ci wajur yi wajur qurba nan ñu rafetal jëm ci qurba ñi nga xam ne da ngeen a am ak jegeñaale ci mbokk ñi nga xam ne da ngeen a am ak jegeñaale ci mbokk ndax kat ak mbokk lu diis la fa sunu borom subhanahu wa taala moom rek mooy li nga xam ne ba ko yàlla bindee dafa la ngaa mi tudde aras wax ne du wàcc borom bi ne ko wàccal soo demee ku la jokk ma jokk ku la dëgg ma dëgg kon ak jege ñaale suñu borom subhanahu wa taala yow su jëm bopp sax boo amoon alal ci boppam daf lay wax ne la ñoom dañ ci am àq wa aati zal qurba xaqa xam naa xaw xaw ma ne mën naa am waa ji borom alal ji yëgul ne jege ñaale bi am na ci àq ndax suñu borom bi àq la ko tuddee ndax loo xamul ne sa àq la doo ko sàkku ci gaa ci xam ne yow mii nag jege ñaar bi am na ci ak nga jox ko wa aadidal xaruba xaqahu wal miskin wabna sabil wala tubadir tabdira la ngay tabdire di ko pasar pasare jox ko dal xurba ñu la gën a jege ndax mbirum alal wax naa la ne le suñu borom subhanahu wa taala daf ko fonk fonkin woo xam ne nanguwut sax ñu di ko jox ñi nga xam ne seen xel daa gàtt wala tu'tu sufaha amwaalakum ñi nga xam ne seen xel yi daa gàtt bu leen leen jox seen alal yi ndax alal jooju noonu mooy seen baasu dund allati jaala allahu lakum qiyaman wala qiyaman seen dund gi baasu dund bi ni ngi aju ci alal yooyu pour mu leen ko jox seen ñi nga xam ne ñoom xel alal bokk ci daruraat yi yi nga xam ne daruraatul xam alal ca la bokk moo tax lislaam araamal sàcc alal jooju nag suñu borom buñ koy laaj fuñ koy dugal fuñ koy dugal saxaaba yi ñoom lépp luñ gis rek daanañ dundale alal waaye nag ndax fañ ko daan dundale fala ñu laaj alquran wala yonente bi alayhi salatu wasalam suñu alal yi fuñ koy dugal walu naka maa bàyyin tuqoon suñu borom ne leen qul maa anfaqtu min xayrin fa lil walidayni wal aqrabin nga ba ñaari waajur jàlle yi rek da caa daal teg al aqrabin mooy ñi nga xam ne ñoo ñi la gën a jege moom la suuf la war ci itam wajul qurba wal yataama ak ñi nga xam ne ay yataama lañ mooy ñi nga xam ne ay ndaw lañ ay gone lañ te mënuñoo fàggu ndax seeni waajur faatu na ndax bu dee ci yatim ci lislaam moom man ca xam ka nga xam ne waajuram génn na àddina waajuram bu jigéen bu góor génn àddina kooku la lislaam wax yatim bu fekkee ne ñaari waajuram dafa dañoo génn àddina latim la ko arab bi wax dégg nga latim la ko arab bi wax wal yataama nanu rafetal jëm ci yataama yi mooy ñi nga xam ne ay jirim lañ te amuñu seen wajur seen wajur nekk fi nañu rafetal jëm ci ñoom ci fànn gépp nag ba ci seen alal yi nga xam ne seen wajur daf ko faa bàyyi bul ci jéem a dugal dara di ci jéem a maanaam mel ni koo xam ne ci bokk-bokklu wala sax nga dem ba xañ leen ci loo xam ne fii ci sa kàddu dong la borom subhanahu wa taala wax nanu ne ñiy lekk alal yi yataama yi alal jirim yi ñi koy lekk inna alladina yakuluna amwaalal yataama zulman ñooñu innama yakuluna fi butunihim naara jëfandikoo na ñaar yoo xam ne lépp ci wàllu balaaxa la bi njiitu mooy yakuluna am wala alal kenn du ko jël di ko lekk waaye alal ci boppam li ëpp ci luñ ci def mooy maanaam jënd ci luñ ci lekk alal fii su ko jël di ko lekk waaye li ëpp ci loo xam ne fii buñ sànci alal lu ëpp ci loo xam ne buñ sànci alal ci mooy am mooy lekk xam ne ñi nga xam ne dañuy lekk alal jirim yi loolu tegtalawul ne kon képp koo xam ne maanaam yaa ngay wax ba mu sànko itam te lekkoo ko doo ci dugg ah kay kooku da nga ciy dugg min baabin muxaalafa mafhumul muwaafaqa wa gayru mamsuuqin huwa al mafhum la borom téere usul yi di wax liñ ci gis loola la ñu ko def maanaam maf mafhum ñooñu sa borom nee ña ngay lekk ci seen biir sawara waaye ña ngay lekk ci seen biir loo xam ne buñ ko moytuwul sawara la leen jëme lañ bëgg wax innama yakuluna fi butuuni naara te sax wa sayaslawna sa'iira xaw danañ dugg sawara saay woo kon bokk na ci rafetal jëm ci ak jirim maanaam sàmmal ko alala alxuraan wax na ci beneen barab surtout nisaa yi ne bu ngeen demee ba jirim yooyu sax ngeen dem ba yëg ne ñoom rushada lañ maanaam dem nañ ba nekk rachid nga xam ne am na am xel te in anastu minhum rushdan fa dafa'u ilayhim amwaalahum su ngeen demee ba yëg ci ñoom ne ñoom ñi kat ku leen jox seen alal duñ ko sànq kon na ngeen leen jox seen alal fa dafa'u ilayhim amwaalahum wala ta'kuluha israafan wa bidaaran ay yakbaru bu leen lekk alal jirim yi ci ak israaf ndax yow mën na laa jox ak jirim nga di ko wàcc waaye waajuram génn na àddina la fi waajuram bàyyi woon ci alal nga nga di ko dugal ci anam goo xam ne ci israaf lay doon maanaam mën nga leen man man man israaf kenn xam la maanaam lépp loo xam ne ci ëpp na seen aajo rek loolu israaf lay doon ak nag di njëkkante pour balaa doon màgg nga lekk xaalis bi boobu daanaka ay yegg borom ku ci am alal na fegu moom laal alal lu jëriñ ba mën kaa ganiyeen fa lees faafi koo xam ne nag da ngaa nekk ku ñàkk sañ jox la ay jëriñ itam mën nga caa jëfandikoo waaye bil maaruf man kaana faqiran fa liyakul bil maaruf bu ngeen demee ba leen di jox seen alal yi sax wool diw sàngam wool sañ nangam sañ nangam ba ñëw nga ne la kii kat bàyyam dafay bàyyi woon alal te dem na ba doon mag alal jaay ñii mu bëgg ko koo jox ma ñooña teewe ñooña teewe ko maanaam loolu alquran di wax ne wa man kaana faqiran fa liyakul bil fa ida dafa'tum ilayhim amwaalahum fa ashhidu alayhim fa ashhidu alayhim ngir rek benn coow bañ caa mën a juddoo wal masaakin maanaam mooy ñi nga xam ne amuñu luñ mën a dundale seen bopp amuñu luñ mën a dundale seen njaboot ndax masaakin baat la boo xam ne fi su fekkoon ne teqale gi daanaka teqale gi moom bu dee ci fuqaha yi dañ koy teqale dañuy wax ne maanaam faqir mooy ki nga xam ne am na sax waaye lam am da koo doyut bu dee miskin nag mooy doon dara sax maanaam daal suba bu ko jàppalu ci njabootam gi du añ mokk njabootam li ñu ñëwee suba bu ko jàppalu ci njabootam gi du añ kooku mooy masaakin ñooñu la ñuy def lu rafet jëme ci ñoom maanaam ndax kat loolee xaala boobee ñu nekk teguñu ko seen bopp xaala boobee ñu nekk teguñu ko seen bopp su fekkoon ne nit ku ne alal yi ni ko yàlla séddalee dafa doy waar lool wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq yàlla moo moo moo ka moo gënal ñii ci kaw ñee ci wàllu wërsëg parce que loolu ci wàllu alal kon ñooñu nga xam ne yàlla moo dogal ñu nekk ay masaakin ñu leen di bàyyi xel di rafetal jëm ci ñoom ba tey loolu njàngale lislaam la wa qulu te ngeen nag di wax xusnan lu rafet rek li naas jëme ko ci nit ñëpp gis nga alquran waxut wa qulu lil wa qulu lil muminina wala lil muslimina xusnan waaye jëmmi ihsaan dañ ko war a jëmale ci doomu aadama yëpp képp kuy doomu aadama rek te yàlla bind ko rek ihsaan lam na ko dangaa war a def lu rafet jëme ci moom moo tax bokk na ci xusnu googu alquran tudd mooy wax ak moom wax ju teey nooyolal ko sa wet bokk na ci tam digle lu baax ak tere lépp loo xam ne ab safaan la comme ni ko xasan al basri waxee woon ci aaya ba waqulu li naas xusna nee na alxusnu bu ñu ko waxee ci xawlu mooy digle lu baax sa tere lépp loo xam ne ab safaan la boole ci ak lawet ak jéggale na nga jéggale lépp lu ñu def waqulu li naasi xusna maanaam kon suñ borom subhanahu wa taala bu ñu xoolee foofu mi ngi ñuy digal ñu def ihsaan muy rafetal jëme ko suñu njaboot yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ ci xadis bu wér boo xam ne danoo wax ne laa taxqiranna min almaarufi shay'a wa in lam tajid falqa axaaka bi wajhin muntaliq dara ci njëkk bul ko xeeb donte sax sa mbokkum julli da ngaa tafeeg moom amul lenn lenn lenn loo ko mën a jox tafeel ak moom bi wajhin muntaliq saxar kanam yaatal ko ba mu xam ne maanaam denc loo ko dara ci ci loo xam ne ab safaan la kooku ba tey ci xusnu googu lay dugg maanaam wa qulu linnaas xusna wa qulu linnaas xusna na ngeen wax nit ñu xusnu buñ la ko waxee kenn mënu cee baas mu ne kon kon maanaam nun koy dañ noo digal ñuy wax lu rafet rek waaye jëf moom bu lu neex ñoom ñu ñaawal ko déedéet ndax kii sàkku ñu rafetal ay wax kooku maanaam mu sàkku ñu rafetal ay jëf min baabi awla ki sàkku ci ñun ñu rafetal suñuy wax jëme ci nit ñi mu sàkku ñu jëf ay jëf yu rafet jëme ko ci nit ñi kooku min baabi awla maanaam dañ ñu ci alquran itam kon fii buñ ko xoolee yàlla digle na fi jëf joo xam ne fii maanaam ihsaan goo xam ne fi'li la ihsaan goo xam ne wàllu jëf la am na ihsaan goo xam ne tam qawli la maanaam wàllu jëf ji mooy li waxoon ne na ngeen di def lu rafet jëme ci seeni jegeñaale kooku mën naa nekk jëf bu dee yataamaa yi noonu bu dee masaakin yi noonu li mu wax fi ne qulu li naas husnan kooku moom ba tey al ihsaan la boo xam ne qawli la maanaam bi nga xamee ne sunu borom subhanahu wa taala digal na ñu jaamu ko mu daal tey feddali nag ya nga xam ne moo ko ci ëppal solo ci jaamu yàlla yooyu li ñu bëri bëri mooy julli mii nu nekk julli waxoon nañ ci ginnaaw ne julli àddina mënta wëlbati ko ba mu wàcc kenn kuy dox ci kaw suuf si waabud rabbaka xata yaatiyaka al yaqin da nga jaamu sama rabbaka rek ay faaf rek yonente bi lañ ko waxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam lañ ko waxoon ñaareel ba gis nañ ci ay adilla yoo xam ne aqwa min an yatanaataha fi sixatiha kabshani luy wane ne julli du wàcc lu tax ba ñu demee ca geer ba nga xam ne rayante ay bakkan la xam nañ ne yërmaane moom la xee moom la diine ji moom la diine ji làmboo yuridu llahu bikum al yusr wala yuridu bikum al usr wa ma jaala alaykum fi diini min xaraj yuridu llahu an yuxafifa ankum wa xuliqa al insaanu daifa yàlla dafa bëgg taxfif ci yéen li ma bëgg a wax ngeen seetlu ko baax yuridu llahu an yuxafifa ankum yàlla daa bëgg a woyofal ci yéen ndax nit dafa doyee dafa néew doole ba tax na ci mbirum tukki ci mbirum tukki fi mu ne julli yi duñ ko wàññi loolu ñu ko def loo ñaar ah kay ñu koy def loo ñaar waaye bu ñu ñëwee ci mbirum guerre nga xam ne rayantay bakkan la borom bi subhanahu wa taala dana dit bu leen bàyyi julli de fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaanan su ngeen amee ay ragal itam nu ngeen mën a jullee baax na donte da ngeen war ci kaw fas yi di julli baax na bu ngeen mënta war a jox ngeen di daw di julli kon ñële gannaaw tegguñ ko ci ñoom dañ ko teg ci keneen ñaareel bi itam maanaam buñ doon liggéeyal yàlla subhanahu wa taala ba julli jot sax dañuy bàyyi liggéeyal yàlla ba dikk si julli jihaad fi sabilillah bu liggéeyal yàlla ah kay kan moo nekkoon jëwriñ def sallallahu alayhi wa sallam ba julli tey yonente wax wa ida kunta fihim mu ne haa ñu ne ko fa aqamta lahum salat nañ ko def ñaari kuréel fal taqum taifatu minhum maak wal yaxudu aslihatahum fa ida sajadu fal yakunu min waraikum wal taati taifatun uxra lam yusallu fal yusallu maak ndax ñëpp nekkee di jullee di julleeloo maanaam maanaam def ko genn fàtte te séddalewu leen ko ñoom dañuy dal suñ ko benn yoon wadda alladina kafaru law takfuruuna an aslihatikum wa amtiatikum fa yamiluuna aleykum mayla waxida loolu laa ci daw moo tax kon na ngeen julli séddale ko ay par bu ngeen demee nag ba am kóolute ba nga xam ne ragal gi dem na fa ida tmaanantum fa aqimu salaata na ngeen ko daan def njëkk fële fa ida amintum fazkurullaha kama allamakum kon mi ngi noonu jullee ngi noonu noonu la forje islam waaye nag dañu gis loo xam ne ku róolu yàlla doo ko def wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin julli lu diis la ci bakkan ku dul bakkanu koo xam ne xaashi la ndax qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashiun foofu li wane ne yàlla ku foofu julli la mooy bi mu ne qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashiun julli képp la fi baamuwaat ñaari yoon ndax ba muy jeexal nee na walladina hum ala salawatihim xaafizuun alladina hum ala salawat waxoon na ci walladina ala salawatihim xaafidun ñi nga xam ne sax ñoom la yàlla dimbale ci bu guerre doon am bokk na ci ñi nga xam ne ku leen fi bàyyi ñuy julli ak di lu baax alladina in makkannahum fil ard yoo xam ne ku ma dimbale danaa la dimbale wala yansuranna allah ma yansuruhu inna allah la qawiyun aziz danañ ñan laay dimbale alladina in makkannahum fil ard aqamu salaa boobu lañ njëkk def aqamu salaa wa atawu zaka wa amaru bil maaruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatu umur kon jullee ngi noonu noonu la ko war a gis islam waatu zakata di joxe alal ala azaka itam azakaatu xam nañ ne dañoo dugg ci tafasil yi nga xam ne mooy tafasil yoo xam ne tey maanaam du am jàppaloo lool ak tafsir ndax wàllu wàllu wàllu fiq la waaye daal ab quantité la ab kamiyee la boo xam ne nit ki da koy génne ci alalam gannaaw boo xam ne partie ya daje na ca jëmale ko ci koo xam ne si maanaam ku ñëw doole la bu ñam ko war a jëmale itam suñu borom subhanahu wa taala tudd na leen ci alquran buntu bi innama sadaqaat sadaqaatu lil fuqara benn waxkat bu bu bu reelu di wax ne maanaam li ñuy wax westari westari ñoo bi ba ko yàlla waxee ci alquran daa yàgg loolu dégg nga ndax ba mu ne wa wajadu ma amilu xaadira boobu la westari ñoo tudd ëllëg bis penc lan mooy westari ni da nga fële ca réew woola demal ca barab sàngam boo demee maanaam nga jël la nga xam ne moom la fa yónnee nga xam ne kooka bu yëble bu yónnee wutoon loolu bu dikkee doog fekk mu ne nag réunion boobu nañu xam ne dafa am ay barab yu ko yàlla dugal maanaam ku bëgg booy dem mu fekk la foofa ñu ma sadaqaatu lil fuqara ni juróom-ñetti bunt lañ ko yàlla wutal yoo xam ne si fa lañ koy fa lañ koy maanaam wex ngir mu wajadu ma amilu xaadira ku dem boobu wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allah tajidu inda allah si yàlla ngeen koy fekk maanaam dégg nga wa qulu linnaas xusnan wa aqimu salaa wa atu zaka lii nag bàyyil xel ne ci banu israil la nekk doon di wax ne leen dañuy génn lu bari wa in saqnikul ba nga xam ne axaf naa bani axaf naa misaaqa bani israil lii lépp lañ jëloon ñoom tulla rek ngir ñu waroon koo doxal waaye summa topp tawallaytum ngeen wane ginnaaw kon ci seen dëgër bopp gaa ngi noonu ci liñ doon wax summa topp tawallaytum ngeen dëdd illa qalilan ndare lu néew minkum ci yéen suñu borom subhanahu wa taala waxut ne ñoom ñëpp ñoo ñoo jëfewoon ndigal li waaye ñi ci gën a bëri jëfewuñ ndigal li yi gën a bëri jëfewuñ ndigal li maanaam da ngeen koo wan ginnaaw illa qalilan ndare lu néew minkum ci yéen wa antum te mbir moom yéen mu'riduuna way dëddu ngeen ñu ngi bàyyi ko ci aaradu yuridu i'raadan maanaam dëddu mooy bañ a am soxla ci li nga xam ne moom lañ lay sant suñu borom subhaanahu wa taala dellu di wax ci aaya bi yahud yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam madina am na yahud yi nekkoon madina aaya bi ñoom la wàcc ndax ñoom dañ daan jàppalante ci wàllu guerre di rey seeni mbokk ndax xam nañ ne am na ñaari jiir yu ñu xam ci lislaam ñaari ji jiir yoo xam ne fi xam nañ ne madina la nu nekkoon bala ñoo ñëw ci tafsir bi dañuy wax sabab bi nga xam ne moo taxoon aay boobu wàcc xam nañ ne madina dafa yonent bi alayhi salaatu wasalaam demee fekk na fa ay kuréel yoo xam ne ay yahud lañ kuréel bu njëkk ba ñu ko wax banu qaynuqa ay yahud lañ ñoom nag am nañ daan wax aws ak xasraj defe naa kenn ku ne ci lislaam xam nga leen ci wàllu xeex bu yàgg seen diggante aws ak xasraj ay giir la ñu woon ba ay yu nekkoon ci Madina waaye ñoom dañ dawut jaamu yàlla ñoom ay xërëm lañ daan jaamu maanaam ñu bàyyi xel ay mushrikoon lañu woon waaye yooyu di ñoom amoon nañ téere yàlla def banu Qaynuqaa boobu dañoo àndoon ak Xasraj maanaam nekk seen i farandoo nekk seen i farandoo loolu daana am ceddo gi bu njëkk nit koo xam ne si dafay jékki-jékki rek jël génn gi sax ko ci boppam lu xew su fekkee ne dañ koy waajal loolu tam giir googu di ko taxaw kon banu Qaynuqaa ñoom ñoo taxawoon ànd ak giir gi ñu wax Xasraj banu Nadiir ak Qurayb ànd ak giir gu ñu wax aws nga xam ne bu ab xeex doxee seen diggante banu Qaynuqaa ci boppam dañuy jàpp bu fekkee ne ab xeex dafa am ci diggante Xasraj ak aws kenn ku ne sa yooyu jàppale dañ lay jàppale xam nga banu Qaynuqaa ak Qurayza banu Qurayza ak banu Nadiir ñëpp ay yahud lañ su ko defee bu ñu leen jàppalante faaw ñu rayante seen biir ñoom ñi nga xam ne ay yahud lañ te am nañ téere boo xam ne mooy tawraat la leen ci yàlla sant mooy bu leen rayante yéen ci seen biir loolu lañ leen ci santoon waaye ñoom fii li ñu layee mooy gannaaw noonu dafa am ñoo xam ne fii dañ ñoo wóolu ba def ñu seen i partenaire kon su xeex amee dañ leen di jàppale jàppale googu ñu leen di jàppale moo tax ñoom ñu firi la nga xam ne moo nekkoon ci tawraat wa illaa la nekkoon ci tawraat moom mooy suñu borom da leen a santoon bu kenn ci ñoom di rey ñi ci def ndax ñoom ñëpp genn genn giir lañ rek boo gisee alquran ni mu jëfandikoo fii ne yooyu fàttalikul ba nga xamee ne axasanaa jël na nii faaxakum seenu kollëre kollëre gan la laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen seen i deret waaye toog ak fakku dima mooy tuur deret niñ ko jàngoon ci ginnaaw waaye fakku dima wala tuxrijuuna bu leen génne anfusakum seen bopp min diyaarikum ci seeni kër nit ñi muy génnee boppam day génne mbokk saa boo génnee sa mbokk këram maanaam génne nga sa bopp moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xarit bi wax ne loolu mooy lu mel ne la jàlloon ci ginnaaw ne fa tuubu ila baarikum faqtulu anfusakum faqtulu anfusakum maanaam bu jàpp ne bu leen génne seen bopp day lu mënta nekk li ci borom bi subhanahu wa taala bëgg wax mooy bu kenn ci yéen di def loo xam day tax mbokkam génn ci këram ndax tey jii bu aw fa ak xasraj amee lu dox seen diggante kenn ku ne taxaw maanaam ngir défendre wala wala wala nga dimbale ka nga xam ne moo ko faral kon faaw mel na ne yaa génne sa mbokk mel na yaa génne sa mbokk parce que yonent bi alayhi salaatu salaam ci diine ji muy wax ne masalul muminina fi tawaddihim wa taraaxumihim wa tawaasulihim bi masali bi manzilati jasadi l waxid xeet wi yëpp yëpp yëpp ci kem tulaay li ñu yërëmante ak li nga xam ne noonu lañu noonu lañ jokkalante seen biir dañoo mel ne benn yaram ida staka minhu udwun tadaa lahu sairul jasadi bi sahri wal oma bu benn benn benn benn benn cër amee lu ko métti cër yëpp koy yëgandoo kon xeet wi yëpp suñu yonent bi alayhi salaatu salaam lay na def da leen a def muy benn uddu benn cër kadalika diine noonu lay def aw nit diine bu ko ñëpp jàppandoo dañu mel ne ñoom ñëpp benn lañ kon wala tuxrijuuna anfusakum min diyaarikum bu leen génne seen bopp seen i kër mooy bu leen def loo xam ne day day tax seen i mbokk di génne seen i seen i kër loolu ba nga xamee ne jël naa ko woon yàlla mu di kóllëre ci yéen su ma topp aqrartum yéen iqraar loola maanaam saxal ko ci ne da ngeen ko def wa antum tashhadun jumla ji jumlay xaal la maanaam ngeen seede ci ne da ngeen def loolu waaye dañu ko wax seen lamiñ waaye jëfu leen ko su ma topp antum haulaai yéen a ngi ñuy taqtuluuna anfusakum di rey seen bopp wa tuxrijuuna di génne fariqan ab kuréel minkum ci yéen min diyaarihim ci seen kër tazaaharuuna alayhim di dimbalante ci seen kaw bil ismi ci bakkaar wal udwaan ak noonu tazaaharuun almubaahara mooy dimbalante tazaaharuuna alayhim di dimbale seenum noonu ci seen kaw ci kaw loo xam ne si tegu ci yoon waaye ci ismu la tegu bàkkaar ak odwaan lii ci borom subhaanahu wa taala teg nag mooy la nga xam ne moo ci daan juddoo waaleykum salaam ndax lu tax xam nan ne xam nan ne lan mooy awsu ci boppam mooy jir gi ma tuddoon léegi ak xasara gannaaw ñoom ñëpp kenn ku ne am nga ku lay jàppale banu Qaynuqa wax naa la ne ñoom ñooy jàppale Xasraj ñooy jàppale Xasraj ak banu Nadir banu Qaynuqa ak banu Nadir ñooy jàppale Xasraj banu Qurayza di jàppale Aws di jàpp di jàppale Aws bu fekkee ne guerre bi jeex na ba am ñoo xam ne fii dañu leen a jàpp masalan ni ñu waxee léegi banu Qaynuqa ñi nga xam ne ñoo ànd ak Xasraj Xasraj am na ñoom jàpp ci banu Qurayza su boobaa banu banu Qaynuqa day jug ngir maanaam fakku ñooñu muy dégaase maanaam bu fekkee ne yéen a jàpp ñu joxe ci alal loo xam ne fi day tax ñu bàyyi leen day tax ñu bàyyi leen wa iyaatukum bu leen ñëwalee usaara ñu ñu jàpp usaara ma jëm asir tufaadiru ngeen jot leen ñu bàyyi ko ci sibiya su fekkee ne guerre bi jeex na kenn ku ne sa mbokk buñ ko jàppee yaa ngi génne ci sa poos ci wàllu xaalis joxe ko ngir ñu bàyyi sa mbokk moom loolu noonu nga def baax na gaa waaye am na lu ko gënoon a baax mooy nga njëkkoon a jëfee la la lañ leen digaloon ci tawraat mooy ngeen bañ ju ngeen bañ indi fitna joo xam ne tax kenn ku ne di génn kon da ngeen a bëgg a jël ci tawraat am lu ngeen cee jëfee la ca def ngeen bàyyi wa tama muharramu lu ñu xaraamal la aleykum ci yéen ixraajuhum maanaam génn gi ngeen di génn seen bopp wala force gi ngeen leen di force bañ génn loolu dañu leen ko araamaloon ba noppi bu ngeen ko defee nag ba geer ba jeex ngeen jàpp tuuri bopp yéen génn ci seen alal bopp di ko joxe ngeen ñu bàyyi leen yéen a ngay jóge lu nekk ci tawraat waaye yéen a ngay bàyyi itam lu nekk ci tawraat ndax ñaari ndigal moo nekk ci tawraat tawraat dañ caa digal yow di ne leen bu kenn ci yéen di di di dimbale maanaam keneen masalan ba ma koy naqaa bu leen jàppale xasraj ndax ñooñu ay jaamu kër xarij la xaram lañ bu leen leen jàppale buñ dee xeex ndax bu ngeen leen jàppalee buñ dee xeex ak awsu mi ba noo naw bi tam dañuy jàppale awsu dañuy jàppale awsu ndax kenn ku ne am na ñoo xam ne si ñoo taxaw ci sawet su guerre bi jeexee nag ba ma koy naqaa dana am ñu jàpp ci ñoom ñu leen jàpp mooy awsu jiw awsu banu nabi rek dana am ñu jàpp ñoom ñu leen jàpp mooy banu xay nuqaa ñu rey kenn ku nekk ci ñoom nag génne alal maanaam jël sa affaire dañ jàpp ci yow génne ko te loolu ngeen di def baax na waaye am na lu ko mënoon baax mooy dañ leen njëkkoon a digal ne leen maanaam bu leen jàppalante bu leen jàppalante ak ñoo xam ne fii maanaam ay musrikoon lañ ndax jàppale ngeen ci jàppale gi ngeen jàppalante ak ñoom moo indi maanaam ñu jàpp ci yéen ñenn wa yaatukum usaara tufaatuhum wa huwa muharramun alaykum ixraajuhum rabbi ne afa tuminuuna ndax da ngeen di gëm bi baadul kitaab lenn ci tawraat wa takfuruuna di weddi bi baadi loolu mooy nangu nañoo jëfee benn partie ci tawraat waaye bàyyi partie ba ca def loolu itam lu yaatu la ndax noonu mu duggee woon ca tawraat loolu lay duggewaat ci suñu téere bi téere alquran bi du yàlla ci benn jullit mu am lu mu ci la araamaloon ci banu israil te mooy jël ci tawraat lenn di ko jëfe bàyyi la ca def loolu itam araamal na ko ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn jullit dëggalu ci moom mu ne man danaa di julli danaa di woor danaa di natt azaka waaye nag sama njaboot moom du ma leen digal ñuy muur seen yaram ndax loolu moom du ma ko def te kat aay bi digle julli aay bi digle woor mooy aay bi digle muur yaram masal ci misaal yaa ayuha nabiyu qul li azwajik wa banatik wa nisaai lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihin dalik adna an yurafna fala yudayin ñaari aay yooyu ñoo tolloo benn dagara ndax yëpp ay ndigal yàlla la kon doo mën a jël ci alxuraan ji nii di ko jëfe bàyyi la ko def donc nag bu ñu xoolee ñun ci suñu dund maanaam ci dund jullit ci jamono ji maanaam moom daanaka mën ngaa wax ne alquran ji dañ koy jàng nii rek nag waaye lenn loo xam ne ñu ngi ko ci jëfee waate ay nga di ko gis ci loo xam ne alquran dafa saariqo saariqo sax ay dew ma ana man fàttali fi def loxo saariqo am ndigal yàlla yi dafa woyof woyof boo xam ne fii moom bu nu neexee def bu nu neexee bàyyi saariqo saariqo sax ko ay dew ma ñaarakat bu jigéen ba ak ñaarakat bu góor ba fajlidu kulla waxidin minhuma mi'ata jalda ku ne ci ñoom ñaar na ngeen ma leen dóoral téeméeri yar bu yaram maa ne am foofu wala taaxudukum bi ñaar asati dinillah defuñ ci dara léegi kon alquran ji lam jàmbatoon la yonente bi alayhi salatu wasalam jàmbatoon boroom mi ngi am wa qala rasul ya rabbi inna qawmi yattaxadu hada alqurana mahjura hijraan mooy tungu alquran tungu borom xam-xam yi maanaa danañ ko wàcce di ko wàcce ba nga xam ne fas yi façon tuum yi ñi ëpp na daanaka ñam des na tungu alquran ci tadabbur maanaam nit koo xam da koy jàng nii rek waaye jéemutee setantal dara alquran xam nañ ne moos la ëpp ci li ko tax a wàcc la ci gën a ëpp njëriñ mooy nit ku koy jàng te di ko setantal kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yaddabbaru ayaatihi te kenn mënta set laam googu laamu ko illa la laamu taalil la ngir ñuy setantal aay yi te xam nañ ne moos kenn mënta setantal loo ko moos moo tax ñu gis ci masaalik wa aayatun waaxidatun tudubbirat minha takuufu xatmatan minhu xalat benn aaya boo xam ne ko doon jàng da ko doon settantal xam la ko ci yàlla digal mu fas yéene koo def la ko ci yàlla aaya mu bàyyi ko loola day moo gën xat na boo xam ne xalaat min maanaam jàng alquran ji wàcc ko ba mu jeex te xamoo ci dara ci loo xam ne sa borom subhanahu wa taala sant na ko mbaa moo ko yële ko sëriñ bi wax ngeen ko wax leeral ko leeral ko maanaam nee na benn aaya boo settantaloon jàngoon ko settantal ko sax moo gënoon jeew ngay jàng téere ba mu jeex te xamoo ci dara jox kon mën naa am ñu dem ba jëmi jamono nuy jëfe ndigal yàlla yooyu waaye ndigal yàlla ñun ñëpp teg suñ tegandoo suñu bët moom nekkul waa xëy yenn daal ak ci biisu dëgg loxoon maa boo ko dagee da nga dugg ci biir parce que yàlla kat bi noonu boo ko defee da nga dugg ci dëgg ba nga xamee ne nag maanaam tasaaxul dugg na suñu biir ñun jullit ñi ba nga xam ne yeneen yeneen doole wala yeneen force bàyyi ko nañ ci ci beneen wet ba ak ci xarbe ci ñun yeneen xawaan yi yoo xam ne wadiya la ay luwaa yoo xam ne ay doomu aadama tër dong la dégg nga wutal ko ay bunut ne article sàngam lii la wax article sàngam la wax alxuraan lépp ay article la lépp ay article ñu wottee ko nag yeneen yoo xam ne ci ay doomu aadama ñoom ñoo ko tëg loolu moo nu indil maanaam ñuy gëm lenn ci alxuraan yi di bàyyi wa illa su fekkoon ne jullit ñi am nañ ak jàppaloo ci seen biir am nañ ak jàppaloo seen biir xam ne benn diine moo leen boole muy lislaam benn yàlla lañ bokk di ko jaamu muy yàlla subhanahu wa taala benn barab lañ bokk di ko jublu benn alxuraan lañ bokk di ko jàng kooku du am ay fawaarif yu dox seen diggante yoo xam ne fi maanaam bu leen seenom noonu bàyyi ko ca àll ba dafay am maanaam fu mu leen jaar buñ sakkoon seen i bunt ñoom ñu war a sakkoon julli ñu sakkoon seen i bunt rek ba bàyyi woon kenn fu mu jaar rek suba danañ mën a taxawee ndigal yàlla yooyu ndax kon foofu fuñ ne dañuy taxawee ndigal yàlla noonu bu jubati rek julli ñëpp jugandoo te ñëpp jugandoo jàppandoo ne loolu dana dem xaw dana dem te bu te itam day dem waaye fii mu ne loolee sax nga dégg ci réew ñu ne ñooñu dañoo bëgg a jëfee ndigalul yàlla yéem a taxawal ahkaam yi nga gis maanaam coow lu rëy mu jur ko dégg nga ndax loolu mel ne France fan yee ci ginnaaw nga xam ne dañoo waxoon ne ñi jàng ci maanaam ñi maanaam maanaam li wàllu wàllu diine wàllu diine moo xam ki nekk ci kanisa bi la moo xam ki nekk ci jàkka bi la ñu mën a doon rek lépp loo xam ne mazharu diin la buñ ko feeñal ci public bi bu leen neexee nag ku ci neex boo ne boo duggee si église nga def boo neex boo duggee si nga def waaye ci barab yi ñuy jàngi maanaam école yi ñuy jàngi bu benn jigéen ñëw di muur bu benn jigéen ñëw di muur loolu ab ab ab bande la woon boo xam ne si dañ ko faa dañ ko faa dañ ko faa extraaroon loola demoon na ba tasaaroo bu dugg ci biir Sénégal ñu def ko ba ba ba ba ba rajo yi di wax waaye la lay la ci gën a doy waar mooy jullit ñi nga xam ne dañuy woote naan waaw ñoo ñoo moom seen réew ñoo moom seen réew waaw kër gu ne la neex borom kër gi këru yàlla addina gi ñu ne këru yàlla kon li neex borom mooy ñu jëfe jëgale yàlla ci bàyyi sëriñ alal aqal boo ci mënta boo ci mënta neutre itam li ñuy wax xiyaadi nga xam ne yow da ngaa néew doole ah nga naka ba ko ci xol waaye buñ feeñal li wane ne maanaam yow da ngaa jàppale ñeneen nga xam ne ay yéefar la ndax jàppale koo xam ne ab yéefar la kooku maanaam meloon na tax la bashir al munafiqin bi anna lahum adaban alima alladina yattaxiduna alkafirina awliya min duni almuminin a yabtaxuna indahum al izza li ci gën a bëri ci loo xam ne si maanaam mooy soob julit bi ba muy jàppale ñu le mooy day sàkk ci ñoom izza sama wàllu économie sama jéemu sama jéemee bàyyi dara Amérique boo muy toog mu téye loxoom sama ji a yabtaxuna indahum fa inna al izzata lillahi jamia a yabtaxuna indahum al izza fa inna al izzata lillahi jamia makka ba nga xamee ne dañoo araamal ne bis benn mushrik dugg moo xam aw ñam nga yor moo xam loo mën a yor dañu dañoo xawoon a tiit tuuti ah aw ñam ñam moom la ñuy jëfandikoo alquran lu wax wa in xiftum aylatan fa yuxnikum allahu min fadlihi da ngeen defe ne ñoo ngi rek ñoo fi indi ñam dañu xam tumaa yi la façon yughnikum allahu min fadlihi kon alquran dañuy jëfe lépp mbaa ñu bàyyi lépp maanaam wa illa lañ ca mën a jëfe sunu kem kàttan ñu di ko def la ca def ñu xam ne bàyyi na njëgal yàlla rek ñu xam ko ñu xam loolu yi fama jazaa'u te déet payug man koo xam ne yafalu dana def zalika loolu yi minkum ci yéen illa xizyun lu dul ak xizyi xizyi mooy maanaa ak bàyyi mooy ñàkk soxla ci moom maanaam abandonné ko maanaam xizyi gàcceel ko bil xayaati dunya ci dundu gu suufe gi loolu sax gis nañ ko koo xam ne ci da nga gëm dara ci alquran wala nga gëm lenn ci tawraat bàyyi la ca def lenn lu ma lay fay lu dul gàcceel la fii ci dund gu suufe gi mu ngi dund adduna gi bara ngaa dem fenn ndax mënuñoo taxawal dara dara dara dara dara ci santaane yàlla yi maanaam amuñ benn droit benn droit amuñu ko ci taxawal dara ci loo xam ne santaane yàlla kenn du ko kenn du ko jib sax kenn du ko wax mu jib kon xëj yoo ngi noonu fi xayaat dunya te kat wa yawmal qiyaama bis bu mujj ba yuradduuna def na de def na delloo leen ila achaddil azab ci gën jaatari am mbugal ah bis bu mujj ba fa leen seen borom bi yóbbu mooy mbugal ma gën a metti wa ma allahu bi gafilin amma taamaluun yàlla nag nekkut ne dafa day naagal wala dafa ñàkk am soxla ci li ngeen di def maanaam baat bu gaafil ci xafla la bàyyi ko maanaam nit koo xam ne ci mbir dana am ba jàll du ko yëg kooku mooy mooy xafla loolu mooy xafla mooy sàggante la ko rob bi wax maanaam sàggante waaye kooku baat bi dafa xaw a kii kii ci tuuti ci borom bi maanaam ñàkk am soxla ci li ngeen di def wallahu bi ghafilin amma ta'malun maanaam li ngeen di def lépp yàlla na ko bàyyi xel aay bi aay bu raglu la wa ma allahu bi ghafilin amma ta'malun ci koo xam ne xam nga maanaam yi mooy lépp looy def fii ci àddina lu mën a doon itam bàyyi xel ne maanaam suñu borom ñu ngi koy bàyyi xel wa ma allahu bi ghafilin amma ta'malun ndax nit ñaar ñaari ndab la am ndabul guddi ndabul bëccëg maanaam ndabul bëccëgam lii lim koy fàggu borom baa ngi koy def ci borom wa ya'lamu ma jarahtum binnahaar mi nga xam li ngeen di fàggu ci bëccëg bu dee guddi gi nag moom waxuma wax waxi nopp ndax daanaka bu dee guddi moom li ci gën a bëri nelaw fay am te nelaw moom daanaka lu ngeen toggati rufi alqalamu an salaatin an naayim xataa yastayqis kii nelaw gaa xalima nga yëkkati nañ ko waaye bu yewoo fii moom li ñu fàggu ci bëccëg gi wa yaalamu maa jaraxtum binnahaar wa yaalamu maa jaraxtum binnahaar wa ma allahu bi gafirin amma taamaluun te ulaayka gaa ñooñu alladina ñooy ña nga xam ne ishtaraw dañoo weccee dañoo weccee ko maanaam dañoo jënd dañoo jëndee ndax jënd mooy weccee ko rek joxe dara ñu jox la dara istaraw al xaya ad dunia bil axira maanaam la ñu waroon a am al axira dañ koo wecceeku ci àddina àddina bu suufee gi ulaika alladina istaraw al xayat ad dunia dundug àddina gi mooy li nga xam ne moom la ñu joxe badalal axira baa gi la ñu tudde baaul badaliya ci naxu mooy maanaam nga xam ne lii nga ko wote comme lu mel ne araditum bil xayat dunia min al axira araditum bil xayat dunia min al axira nga xam ne maanaam addina gu suufe gi moom nga weccee àllaxira ndax bañ a faatu bañ a faatu rek bokk na ci nag yàlla ne woon na xeet sa sa tadaa aleykum al umam maanaam dañ dem ba ci jëmi ci jëmi jamono xeet yëpp danañu këpp ci seen kaw di leen noté di leen not kama tadaa kama tadaa al akalatu ala al xifaa comme ni nga xam ne ñu xiif buñ tegee ay góor yoo xam ne dafa am lu ca nekk luñ soxla nañuy jiiroo jëm ca xeet yi dana leen ko def ñu ne ko amin qillatin xiina idin ya rasulallah ndax bu boobaa suñ bi suñ lim bi day néew mu ne laa bal antum kusurun lakin gusaa'un ka gusaa'i sayn da ngeen di bëri lool waaye da ngeen ne mu ne puukee boobu nga xam ne bu ndox mi ñëwee rek ànd ak moom yëpp ko maanaam beneen ci beneen la waaye mu ne maanaam su boobaa da ngeen di nekk ñu bëgg addina ba noppi bañ dee xubbu dunia wa karahiyatu mawt da ngeen di bëgg addina lool ba noppi bañ faatu maanaam kon dara jarut ab julit alal aqal su yégee ne ndigal yàlla yi na mu waroon a amee amewu ko itam mu ci amu naqar ci biir xolam waaye kem tulaay li nit ki ñàkk a teewlu noonu dana dana dem ba sax li am nii mu defee ne maa nii la war a continuer di wéy nii rek maanaam alal aqal su fekkee rek mënoo taxawee ndigal yàlla yi nga am aw naqar ci ne la waroon a am amu rek dégg nga la waroon a am amu wala yuxafafu anhum al azab wala yuxafafu déeful wayafal al azab mbugal ma anhum ci ñoom ñoo ñi nga xam ne ñooy waa sawara sawara am na ñu ngi koy woyofal mbugal dëgg la ga joxe Abu Talib Abu Talib bàyyi taxu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ñu woyofal ci ñoom mbugal ca la bokk ci ñaari xale yu teg ci seen fii maanaam ñuy baxalu yuuram moom moo ci gën a woyofal moo ci gën a woyofal waaw ñaari xale yoo xam ne dañ ko teg ci maanaam ron tànk yi muy baxal yuur ku kan gën a woyof am mbugal ci sawara maanaam te dara mu yu ko ko kat lu dul lan daan jàppale yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci yëndeenu islam waaye gannaaw génnaa ne lu dul iman yonente bi moo la wax loolu ñu wax loolu ka fa gën a néew mbugal mooy koo xam ne ay xal lañu teg ci ron tànk yi muy baxal yuur maanaam waliyaasu billahi taala wala yuxafafu anhum al azab kenn du woyofal ci ñoom mbugal wala hum te déet ñoom itam yun faruuna déefi leen dimbale kenn du mënu leen a dimbale ndax yàlla ci boppam yàlla ci boppam wa huwa yujiiru wala yujaru alayhi wa huwa yujiiru wala yujaru alayhi borom bi kenn du fi ab loxoom di ko di ko bañ naa ko liggéeyee borom bi kenn du ne ko liggéeyee ndax bis bu mujj boobee suñu borom subhanahu wa taala ci alquran bu ñu ko dee bàyyi xel dana fa wax léeg-léeg loo xam ne si maanaam dana la ragal lool ndax day jël ña gën a kawe ne ne ñooñu amuñu fa droit yawma yaqumu ruux ruux mooy kat jibril ba nga xam ne jibril lay taxaw wal malaayika laa yatakallam ñëpp ci yam kenn du ko wax xanaa ko yàlla jox ndigal illa man adina lahu rahman te buy wax itam wa qaala sawaba feneen mu ne wa xashaati l aswaat lirrahman kaddu yëpp ay suufe lirrahman fala tasmau illa hamsan boo mënta ñàkk dégg itam la ngay dégg hamsu lay doon mooy ay déeyaate lay nekk wala tasmau illa hamsan kon bis boobu noonu la demee bis boo xam noonu la demee nag neexut yàlla di jël ay nit di leen yóbbu sawara nga dem ci wax wa ma lakum min duni illahi min waliyi wala nasir bu yàlla jàllee duñ ko am wali duñ ko am na ko ndegam yonent bi alayhi salatu wasalam dafa yàlla wax naan ko yahud yaa ngi ñuy waaye boo leen toppoon topp seen bànneex wala in ittabaata ahwaahum baada alladi jaaka min al ilm yow su jëm bopp maanaa ka min allahi mi wali wala nasir yow su jëm bopp maanaa fii doo fi am ku la fi jàppale feneen lu mu ko wax dane ko yaa ngi nii waaye su ma la jàppale wutoon dëgëral la walaw laa an sabbatnaaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila tuuti nga jéngi jëm ci ñoom te kon su boobaa idan la adaqnaaka diafal xayaati wa diafal mamaati suma laa tajibaka aleyna nasira boo fi gis kenn ku lay dimbali maanaam loolu yonent bi lañu waxat yaa ngi nii boo ma waxaloon dara ci alquran lu bukk teg li ma wax su fii laay daj walaw taqawala aleyna baada al aqawil la axadna minhu bil yamin summa la qataana minhu al watin fi muy watin loolu yonent bi lañu wax suñu dee waxee yonent bi alayhi salaam ibaara yooyu yi nag ñu war a bàyyi xel war a bàyyi xel bu baax maa lakum min maljain yawma idin maa lakum min maljain yawma idin keroog bi ngeen fa am malja fa ida baraqa albasar wa xasafa alqamar wa jumia alchamsu walqamar yaqulu linsan ayna albasar kalla la wasar ila rabbika yawma idin almustaqar kon li ma doon leeral tey jii ne nit su xasee yëg ne moom masulun an nafsihi masulun an nafsihi loolu waxuma ko borom bee ko wax kullu nafsin bi ma kasabat rahina wa tuwafa kullu nafsin ma kasabat rahum la yuzlamun maanaam nit bu yégee ne moom masulun an nafsihi bi ko yàlla bind bi mu ko bindee ba noppi maanaam da ko fee bàyyi fii ci àddina wutal ko nag ay yoon yu mën a jaare ba xam inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura wan naa ko aw yoon wu mën a jaar benn mu jëfandikoo jumtukaay yi ñu ma ko jox te mooy wa jaala lakum sama wal absara wal afida laalakum tashkurun tabbi ajana wala mu ñàkk a jëfandikoo jumtukaay yooyu yi ma ko jox bokk te ñëlay wal alquran ni wala qad zarana jahannam wala qad zarana li jahannama kathira min aljinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal a'nami wa ulaika humul ghafilun mas'ulun an nafsihi loolu li mu ci joxe misaal mooy ay la mooy ak ñàkk li mu joxe misaal mooy tey jii bu fekkoon ñun ñëpp dañoo nekk ci aw mar waa waa jaati yëpp dañoo mar ci ne daanaka kenn ku ci ne mas'ul an nafsi lay doon suñ ne ab oto ndox taxaw na fii boo may dul da nga gaañ suñ si yaxloo mële fa ñu fa ñu jële ndox boo may dul si yaxloo itam na lay gaañ du bàyyi xel ne yow soxal maanaam yow magam nga mbaa dara wallahi masru àlla ci biir xel ko bu nit ñëpp nekkee ci mar bañ ne oto baa ngi lële di ñëw da nga fa gis ñaar ñoo xam ne ñu bëggante ci barab bi nga xam ne ni fii dañuy wuteem ndox dara wul ko mooy kenn ku ne daa bëgg am ndox naan rek moom lu màkk na naan rek moom kullu mar mas'ulun an nafsi soo naanee ba noppi nag kii kon addina léeg-léeg ay xaalaat daf ñu fi loo xam ne ay xaalaat ñëw fi yoo xam ne si sax dañuy war ne kullu insaanin masulun an nafsihi ay ay kalaat loolu xel xel moom si addina da ko da ko at lu bëri bëri kenn ku ne masulun an nafsihi kullukum masulun wa kullu masulun wa kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati kon bu nit doom boo adama yëgee ne maanaam man kat man yàlla wax na ma ci alquran ne da nga ma ñëwal fardan kulluhum aatihi yawma alqiyamati farda loolu kii ku xam loolu te xam ne yàlla mi ko wax dana ko def billahi alladi la ilaha illa hu dana ko def kenn ku ne da nga taxaw ci kanam far dan lu mu lay laaj sa sa jëf yi ba nga tàmbalee keroog nga dund ba nga ba nga ba nga juddoo ba ni nga toll nii ba keroog faat li nga fi def lépp dana la ko laaj ba lijjantil am aw jawaab jawaab foofi wa laqad jitumuna furada kama xalaqnakum awala marra yéen ñi ñëw fii kenn ku ne maanaam yaa ñëw na woon fii tey jii la ngeen te sàngal suba la ngeen te furaada na ma leen bindee woon awala mara noonu ngeen may ñëwale wa ma awala mara tey bu dee bu dee alal joo amoon ci sa ginnaaw ngay bari wa taraktu ma xawal naa ko wara uhuri wa ma nara maakum shubaakum alladina zaamtum annahum fikum shuraka ba ci sax seen subaa yooyu ngeen defoon ne maanaam ay sur samay suraka rek gisuma man yàlla ñu ànd ak yéen bi ngeen ñëw wa ma nara maakum shubaakum alladina zaamtum gis nga baat zaamu la yàlla jëfandikoo yéen ko foogoon rek zaamtum annahum fikum shuraka laqad taqattaa baynahum wala baynakum baynakum wa dalla ankum ma kuntum taftarun kon doomu aadama war naa bàyyi xel bu baax ne bis a ngi ñëw boo xam dana taxaw ci kanam yàlla leeral ko ak dundam fam tàmbalee ba fam yem leeral ko ak dundam fam tàmbalee ba fam yem su boobaa bu nit ki xamee loolu nag dana dee góor góorgóorlu kenn kalaat ak nam pour gis loo xam ne si dana mën a jëriñ wa illa soo fekkee ne da ngaa bëgg maanaam bàyyi jaamu yàlla yi teg ko fii ci barab fas yéene lii kii di jaamu wala cee la mi jaamu nga di ca yaakaar kon fexeel ba bisu tey jii nga dem fee ca marché ogas maanaam nga xëyandoo nit ñi ñuy dem marché ogas maanaam yor nga place waaye bul ubbi nee na ki ma dendal place moom laay bàyyi xel bu ñu wa- ba ba ba wàcc jot ba ba kenn ku ne dem kër ga ba xam dana bokk yow moom loolee mu liggéey yoonam déet bu bokk yow daal te boo ci jàpp nit ñi xam ne li nga def yoon ndax moom may daan bi yaatal lañ ko waaw mën ngaa dawa dawa dawa ba daanu may daan bi yaatal te jaam yàlla loo ci def lu mu rëy rëy rëy o man tazakka fa innama yatazakka li nafsi looy sell sell sa bopp nga sellal wa an laysa lil insani illa ma faa wa anna sa'yahu sawfa yura dañ ko koy wan maanaam mu gis ko su boobaa dafa ma yaamal misqala daratin xayran yarahu wa ma yaamal misqala daratin charran yarahu hada walilahi alhamdu wasalatu wasalam ala rasulillah